réew mi bëggoo toppoon ci yow ci ay élection ñëw fekk ci la laas yéen a kaay nee wax na ci dil bi nga xam ne moom la koy tuumaal digganteem ak Idrissa Seck Macky Sall nee na dil positif la yéen gi di réew mi quotidien moom xëy génn ñu réew mi yóbbu ñu ca réewum Ghana nee na fu gagné na élection yi lu toll ci waaye nag ñi nga xam ne nekk ci kujje gi ñoom dañoo jàpp ne dafa sàcc élection yi ci dëndu Afrique jafe na loola am njiitum waaye dana jamono ji ab enquête fiscale moom la ñu koy toppee maa ngi ci réew mi quotidien ma dellu ci si réew mi wax xew ci réew mi ak woppi coronavirus ak deuxième vague bi nga xam ne tax na ministre de l'intérieur génne ab arrêté ngir ñu tere lépp loo xam ne jëm na ci wàllum tàggatoo club yi nga xam ne ñoo nekk ci réewum Sénégal ñi ko jiite ñoom ànduñu si président Augustin Senghor mi jiite fédération sénégalaise bu football moom tim àndu si ñu fekk ko ci yéenekaay gii di Vox Populi moom Augustin Senghor nee na sport local bi bu ñu ko teree loolee mooy tàggatu gi dee ci réew mi yéenekaay gii Quotidien nee na Sénégal bëri na ci ay gox yoo xamante ni ñooy épicentre coronavirus fu si mel ni Ngor Wakaam Yoof Ouest Foire ren jii lu jëm ci vacances yi nga xam ne doon nañu ko jox élèves yi ren ay vacances du am am na juróomi député yoo xam ne am nañu woppi coronavirus député bii di Marie Sow Ndiaye am na coronavirus waaye nag téewul ma ngay dox ay soxlaam am na député yu si sonn lool ba nekk réanimation ñoo ngi jàbbaa jonge diggante hôpital Fann dalal jàmm ak principal yéen a kaay gi du source nee na Abdoulaye Daouda Diallo mi xam ne moom lañ dénk wàllu finance ci dafa feebaroon waaye wér na journal bi xëy na wax ci ARMP cour des comptes inspection générale d'État OFNAC CENTIF yéen kay gi nee na corps de contrôle yi yëpp dañoo faatu dee nañu nasax nañu te kiituñ dara ci réew mi ndax dañuy génn ay rapport yoo xam ne amul benn njariñ yéen kay gi di enquête ñu xëy fekk fa ay Tall Sall mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum affaires étrangères nee na passeport diplomatique yi ni nga xam ne moom lañ koy joxe ci réewum Sénégal dina dakk ndax danañu ci indi ak jubbanti du caagane ku jóg rek laaj ab passeport ñu jox la ko yéen kay gi di critique ñu xëy fekk fa ex colonel Alioune Ndiaye mi nga xam ne def na ci police su Sénégal lu toll ci trente neuf ans daan nay xëy wax na le Sénégal est un pays de corruption nee na Sénégal ger gi nga xam ne moo nekk ci réew mi wulle na ñaay te mën naa yàq am réewa yéen a kaay gi de Les Échos nee na am na benn kilifa bu mag boo xam ne pale la doon liggéeyee jamono ji dafa feebar ba maara day taal yi génn nañu ko réew mi évacué nañ ko yóbbu nañu ko France yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy seex waxtaan wu yaatu ak rappeur bii di Canabasse jamono ji bu passé rab yi muy def ab chef d'entreprise la turam dëgg mooy Abdou Abdou Bass Dia bi wax na ci nag album bu yees bi nga xamante ni lay génnee moom Kaana Bass wax na ne hip hop bi dañu ko war a xoolaat yeesalaat ko yéen a kaay gi di Libération ñu jànge fane Ecobank am na ay samba buy yoo xamante ni nañ fa lu ci six am na ko tudd Pape Djibril Kebe moom jamono ji teg nañu ko loxo yéen a kaay gi di vingt-quatre ñu xëy fekk fa Guy Marius Sagna daan nay wax ne président Macky am nga cinquante-neuf nañu retraite ndax amuñu ab liggéey te yaa ko waral yaa leen ko teg Guy Marius Sagna nee ko président yaa ngi feete sa cinquante neuf ans waaye nag nan leer ne lu jege cinquante neuf pour cent ci askanu Sénégal jànguñu bay mën a bind joyeux anniversaire Guy Marius Sagna nee na ko président Macky Sall yaa ngi feete sa cinquante neuf waaye na leer ne bëri na ñoo xamante ni jamono ji ñoo ngi feete seen anniversaire ci kaso bi ndax yaa jël justice di ko doxalee num la neexee Guy Marius Sagna na am nga cinquante neuf ans kon yaa signé ay accords yoo xam ne baaxul ci réew mi dafay nasaxal économie réew mi ndax a yi ma ngi nii accords yi nga xam ne moom nga signé ci lu jëm ci wàllum pêche dara baaxu si loolee lépp Guy Marius Sagna moo ko yakk Macky Sall ni ki démb laas yéene kaay nee na anniversaire u Macky Sall bi bëri na ay sénégalais yoo xam ne joyeux nañ ko sa anniversaire waaye yekkaale nañ ko musiba ak mbelengaana ndax ñu bari dañu ko wax ngir mu respecté li nga xam ne mooy constitution bi yéene kaay gi di sunu làmb xëy sampablaaca nee na Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier kan moo gën a xarañ Bombardier am na ñaari Bombardier